ah macha allah macha allah macha allah vraiment impérial impérial impérial wallahi wallahi voilà yi moom c'est yi mooy émission voilà yi moom vraiment man yi moom mun naa koy mun naa koy déglu mun naa ko seetaan seetaan wallahi on yi mooy affaire bi ñu war a wax nañ wax ñu warta wax nañ noppi wallahi mais monopoliser télé yi jël ay caaxaankat ñuy wax ay affaire yoo la invité ñoo xam ni nekkuñu ñu à la hauteur maîtriser wuñ seen sujet xam nga mais fii moom vraiment le sujet a été maîtrisé seul quoi bi rek mooy le temps bi quoi euh, temps suffisamment le temps pour développer euh, c'est dommage ñi ñu war a jox ñu wax jox ñu leen euh, nit yi duñu jëriñu voilà les ñoo xam ne war nañ leen vraiment di invité ñuy wax parce que ñu yéen ñi ngeen di wax ay njëriñ la dina yee nit yi dina leen xamal ainsi sax ça vraiment j'ai été vraiment séduit vraiment voilà le sujet a été très bien maîtrisé très bien développé très bien dit macha allah temps bee gàtt rek yenn développement yi amul du du faaj mais eh, vraiment <laughs> da nga doon donne yi sax je te jure ay fafali naa ne seen émission yi rajo kii appel yeeg kutu kutu yi et eh, bi moom vraiment eh, amul temps mu sax jël ay appel la ma xam wallahi non macha allah macha allah yal na yàlla yokk xam-xam bi leeral ko te sàmm ko wallaay macha allah yaa si très fier macha allah alhamdulillah jazakallah xeer jazakallah xeer macha allah